waaw maa ngi lay delloo ziar mon ami waaw di la nuyu di la ziare di nuyu képp kuy seetaan waa 4appuis maa ngi leen di bëggee di leen ziare surtout di nuyu suma fa fans yëpp ku luxum fu waay nekk rek maa ngi lay nuyu di la ziare di la ñaanal jàmm di ko ñaanal suñ bopp di ñaanal aussi sama yaay yal na yàlla xare ko àjjana suufu Touba sedd ci kawam ci bark barke naa Mohamed di ko ñaanal suma pap di ko ñaanal mboolem jullit waa di nuyu sama fans yëpp surtout suma grand Ngagne Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax xama nga Pape suma doomu ndey suma xarit maa ngi koy nuyu bu baax waa mu ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax di nuyu kulluhum rek ñoom Ifra xam nga di nuyu suma copain Njaga Càndum di nuyu fans armée ak armée armée ak armée suma grand Diène waaw Ahmed Zoungale maa ngi koy nuyu bu baax waaw moom mu ngi jàpp ci mbir mi bu baax a baax a baax. Mhm. man maa ngi dugg ci làmbu euh, saison 2011 2012 le 13 novembre 2011 laa bëre sama premier combat. Mhm. Mm-hmm. waa non jë naa bëre naa ay ma xool ndax Balla suma su ma juumul du 2011 la jël couronne bi de 2012 wala 2013 côté boobu waaw waaw waaw waaw bi ndax bi may bëree arène boobu moom jëlagu ko oui waaw def naa 12 combats oui non deux défaites 10 victoires zéro match nul waaw. waaw gis nga de ñu ngi góorgóorlu rek <laughs> ñu ngi góorgóorlu vraiment affaire yi moom mooy loolu. Euh, Tafa Gueye 2 mooy sama première défaite waaw waaw waaw première défaite sama grand combat oui waaw combat boobu de mooy sama premier grand combat <laughs> ñëw naa ak fugu ñëw naa ak fugu de jeunesse xam nga bis bi tamit réyoon ci man lool ma ñëw yàlla dogal xam nga mu jaay ma expérience ma yaakaar ne day xeex mu bëgg maa xeexloo xam nga juumloo ma oui. Mhm. waa juumloo ma oui. yi ah waaw yaa ko mën yaa ko mën rek ba ci sama gaay loolu lañ may gëmloo waaw. duñ ma mere. ndax boobu su ma mooy sama huitième combat ku yàlla dimbali ngay nga am sept combat yëpp nga tegale ko di daan soo daanoo ñoom dañuy xam ne tamit làmb daan ak daanu la daanu ci la bokk. Mhm. Mhm. waaw bi ma jógee ci Tafa Gueye 2 Mbaye Diouf lañ ma joxaat grand combat xam nga mu nekk grand contre petit yàlla may ma ndam ci kawam moo ñëwaat teg ci Tafa Boy Bambara mooy jouru combat Modou ak Bombardier maa bëri bi waaw yàlla may ma ndam si kawam mu jóge foofu ñu jox ma ambulance bu Thiès yàlla may ma ndam si kawam waaw sama dernière sortie mooy contre ma ñàkk si waaw may sant yàlla bu baax nag. Mhm, mhm. waaw am na doole naqar naa daan mais yàlla suturaal na ma ba ma am ndam ci kawam waaw du sama mën-mën coobare yàlla la rek. Mhm. caado yooyu. Mhm. waa caat boo xoolee nag bokk nañ ay adversaire benn ñaareel si ba dumbul laa waroon a bëreel mu dem léegi am promoteur bu taxawaloon sama combat caat tamit Euh, deuxième année bi mujj ko mën a tëgg léegi promoteur bay joxoon ma avance dumbul léegi moom mujj jox caat ma ni kon garaawul comme que am na ku ma ko bëggoon ku ko bëggoon tëgg musul fi mujjul finaliser ak ñun mu yàqu kee tamit ñu jox ma sama avancement ak moom mu daw ñu jox ma ki ma bëre ak moom. Mhm. Mhm. waa comme li ma yóbbu rek waaw bëreeg moom jàpp ko daan ko yàlla dogal ci biir bëre ni ma daan defee mu def ma ko ndax ma daan ma waaw waaw caxabal moom waaw ñu bëri dañoo teg ni moom rek laa mëne sax waaw ñu bëri dañoo teg ni caxabal rek laa mëne mais à fin moom mu def ma ko waaw àddunaa ngi noonu waaw gis nga <laughs> mhm. waaw ñu jox ma Feugueleu waaw. waaw mais làmb ji lu sedd amu fi. waaw ku toog moom naan sa galaas naan lii dafa sedd ak lii de non lu sedd amu fi. ruq buy baax la. dégg maan ruq buy baax la cin luy baax la amul ruq buy sedd. làmb ji nag lépp koo jël avance am rek yaakaar am na am yaakaar ne mën nga koo daan moom it mu am yaakaar ne mën na laa daan la. ah ñun yàlla nañ yàlla suturaal rek may ñu ndam li des suñu kanam. fëgg waa waaw yàgg naa ko seetaan nag vraiment yàgg naa ko seetaan gis naa ko ku bëgg affaire bandi bandilu la nag ay eh, affaire bandi bandul ay nappee fi ay xëcc ci làpptaak yooyu yooyu moom xam naa ni ko lool. waaw xaw a sóobaale yooyu noonu te combat bi. xanaa mu ñàkk taxaw mais bu taxawee daa am lu ma ci metti lool muy sama grand Birahim 2 combat mag fëgala waaw combat boobu daf ma metti ndax dama faral Birahim mu doon sama mbokk Bawol Bawol combat bi damaa fekkoon sax may voyage mais bi ma dama wàccoon jour boobu toog taxaw di seetaan làmb bi mu am ndam ci kawam affaire bi metti ma trop xam naa ne revanche lay doon sax mhm. Mhm. ci man. Mhm. non daf ma metti trop ndax damaa xam Birame ko mën fuuf. ah mhm. waa da koo rek da koo nax rek waaw non boobu damaa voyagé woon combat maa ngi ko seetaanee Sagata Jolof waaw te damaa wàccoon seetaan ko sax après soo ko mhm. waaw loolu wér na. combat wu lépp dara mënu cee ñàkk lépp ci mën a am. Mhm. combat bi mënta sedd de comme combat ñëw jàpp naxante daan déedéet day tàng jër. moo lu tàng jër far force loolu moom munu ci bañ dara xam naa loolu la bëgg te man koy fekk si loolu waaw kay dégg naa mu naan quatre vitesses yi quatre vitesses yi na tu cinq vitesses yi laal ko moom. météo mhm. mhm. bi daa war a génn daa war a ñëwaat waaw comme dañ ko fi doon fàtte dafa war a wàccaat ci stade bi mhm. waaw. Mhm. waaw làmb moom làmb moom du maas dabante la da ngay bëreeg say rakk bëreeg say mag bëreeg say moroom peut-être moom toll na ci phase bëreeg ay rakkam man damaa toll ci phase bëreeg samay mag am ñoo xam ni dañoo toll ci phase bëreeg seeni moroom làmb lool rek moo fi nekk xam naa nag ñu daal luñ mën mooy góorgóorlu di wax gars yi ñu sànni ñu ñaan yàlla musal ñu ci cat sàmm ñu yokku ñoo kàttan bañ mën ko daan. waaw gëj naa ko nag gëj dégg trop ci làmb ji gëj naa ko gis aussi mais xam naa nag mu ngi bawal <laughs> pour bàyyi naag bàyyiwul moom loolu moom ndax maa ngi moom duñ déggante lu bëri xanaa ñu gisee nii. mais jantal grand la suma grand la fu ma gis dina ma conseillé dina ma wax lu baax aussi. Mhm. mu ngi États-Unis. Mhm. waaw man de booy xool daanaka bi ma commencé dugg ci euh, tanoor sax laa koy woowee ndax ñoo ma waaw grand combat la presque ñi may bëreel ñu si ëpp dañuy voyage yi waaw ah, man loolu du problème ci man yàgg naa bëreeg ñoom ñu dem kaaw ñëw ma am ndam waaw ah, mooy loolu ñu ngi fii daal di liggéey. waaw mhm. ah, na fexe rek ñaan ñu ñaan bokk affaire yi sotti ci jàmm sotti bi mooy gars yi bàyyi gars mën a bëre promoteur bi jox ñu dat mu fexe bañ a ruux rek dëggal boppam ci li mu doon wax au début waaw. bon ay latéralement lay def nii nappe yooyu yooyu ñun dañoo passé level boobu làmb ji da ngay am doole mën a bëre mën a xeex yooyu mooy daan mbër mais comme nii ay lii nii rek loolu lenn kese daanul de dangay dajale. Mhm. da mel ni waa comme waaw xam rek ñun ay ndaw lañ yaakaaruñ instant bi ci lu dul ci làmb ci la ñu suturlu ci lañ nekk aussi ñoom nag peut-être ñu ngi ci yeneen kon ñun làmb dañoo jaral ñu nekk di ci góorgóorlu bu baax ñu nekkal xam ne ñii ñu ngi góorgóorlu waaw kon su ma amee lu may maayen wala lu may tiit damay bàyyi dem jéem a móodu móodu ji wala leneen. Mhm. oui. moom sax dama laa xiif fi mu toll nii damaa gëj a bëre te damaa am lu ma yoreel armée armée yeeg arméen yi dama am lu ma leen ameel te dama leen ko bëgg a fay. Mhm. waaw. Mhm. waaw bu ko yàlla tuddee de ñi nga wax ñëpp am naa envie bëreeg ñoom bëgg naa bëreeg ñoom su ko yàlla tuddee mais bu ko yàlla tuddul moom kenn mënu si dara. Mhm. oui. Mhm. Mhm. waaw am jàmm ak salaam. aw fii ak kenn xaj ak seen wala demal maa ngi ñëw ñëpp jàmm laa seq ak ñoom waaw. mbëru Malika yi déggoo ma ñu écrit wala mën ak guy gi wala man ak booy Malika nii foo ñu gis nii parce que ñoo bokk li bëgg bokk bëgg-bëgg di ànd wóolante tamit teg si boo ñu koo ci gis rek dangay laaj morom bi waaw ñu doon tamit ay samay nit ñu baax daanaka fii fii Malika ak benn baraag amul différence mais boo xool ñoom fi ñu dëkkee sax ci benn baraag la waaw. Mhm. waa CNG bi ñëw nii nii nii xanaa duñ mën def lu dul ñaanal leen yàlla suñu boroom ñu def fi lu raw li père Alioune Sarr def waaw kenn du ni deful dara li may wax rek waaw def na lu baax ci làmb lu ni gàññ Hmm, dëgg dëgg nag neexul du kenn tamit moo mën moo mën a dajale li neex doomu aadama yëpp nga def ko force da ngay def lii mu neex ñi lii mu naqariñee mais Père Alioune Sarr li mu def lu baax sama gis-gis man moo ëpp dañ koy ñaanal yàlla nag yàlla guddal fanam wéral ko di ñaan tamit ñiy ñëw yàlla kàttanal leen bañ def lu raw li Alioune Sarr def hmm, hmm. waaw waa ci règlement yi règlement yi li ma ci gën a naqari mooy ñaari mbër di bëre di bëre yow kii jël kii jël morom jël tànkam mu résister génn benn tànkam sax ci buntu saag bi nga averti nga jox ko avertissement mais buñ la jëlee xanaa da ngay bàyyeeku léegi daanu mais danga nga war a da nga war a riposter pour rëcc kii daw mooy ki ngay xàcc mu génn géew bi wala ki nga xam buggul jàppante mais ñaar ñuy bëre foofu moom CNG chaque jour man dama koy naxaru da gis ñaar ñu bëri bëri jargandalu kenn ki def action tànkam bu génnee rek ñu àtte jox la avertissement loolu c'est pas normal dagg non wax man dagg bi sax garawul loolu amul problème mais maanaam avertissement bi ñu lay jox te làmb ji bu jeexee foofu ñu yàq sa làmb loolu dafa metti nit waaj no avertissement boobu moom ah, moom laa gën a bañ ci làmb yeneen yi des sax mën nañ ko toloore mais paa ñaari mbër di bëre jàppante ci biir action dóorante xeex ah nga génn bu dee sax daanaka sax booy xool danga naan Malika